li ba at mu ñu topp nee na du ko laal si ñaan gi magam ju baax ji sunu bàyyi moom daal amiin yal na ko yàlla jàppale te dooleel ko sama bàyyi moomu delluwaat ma kàddu gi ni ma maa ngi ñaan la sama rakk na leen ñëpp ñaanal ñu nit ñu ko defaat fekk koo xam ne war na fa yëkkati kàddu Alassane Sène yàlla leen fa yàlla dafa ndam daal lañ ci dugal bismillahi rahmaani rahim génne teg alhamdulilahi rabil alamin ñaar ka njaboot yëpp sang bi daal nee na lu fi aajo waay yal na ko yàlla faj lu fi tiis waay yal na ko yàlla teg lu fi jàngale waay yal na ko yàlla yal na ko yàlla yokk war muy bay laa yow muy bay laa seen animam bisimilah. oh deuxième benn. deuxième deuxième boobu deuxième boobu toog nga toog nga mun nga toog. non da ngay sukk da ngay sukk dañuy gis ngay liggéey ngay liggéey ngay def si ngay def yow sukk. bu leen fàtte ni ñu ngi ñaan te sax ngay ñu ci kaw Thank you. amin amin amin ya rabbil alamin amin ya rabbil alamin amin amin amin amin ya rabbil alamin amin ya rabbil alamin amin ya rabbi amin ya rabbil alamin آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين يا رب الله آمين آمين يا رب العالمين آمين يا ربي آمين يا رب العالمين آمين يا ربي آمين يا رب العالمين ويوم لا محمد رسول الله صلى الله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 سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام نونجي لين نيو جكي جنوبي الخليفة العام سيدي محمد المختار نكاي نانال يالا yàlla jàppale ko dimbali ko dëgëral ko ah nuro kilifa yi fi toog te Seydi Mouhamadou Amin macha allah jiite leen ànd ak al oustaz maam libaas waaye nuyoot suñu imaam imaamu ratib Seydi Mouhamadul Mokhtar moom it nuyoot bay Seydina Isa moom suñu bay raan yàlla yàlla yokk xéewalam ak njaboot gi nu àndal gépp nuyoot macha allahu kilifa yu baax yii ñu fi fekk jëkkal na ca ah meeru Cambérène ci jur paase mbañ ak conseil municipal fépp ànd ak Amadou Samb mi fi nekkoon mu gërëm ko moom itam sant ko lool ah ne imaamu libaas loolu imaamu raatib jottali lu nuyoo bi nag fépp fu imaam ne fi Cambérène tàmbalee ba fu mu yem ku fi imaam ku fi këru diine ku fi sëriñu daara nga ci chef bi Alaaji Isaa ngi ni toog Alaaji Duda ngi ni ci sunu sous-préfet bu Parcelles Assainies toogal fii son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ñu jaare ci moom feddali joxe sunu nuyoo ak sunu cant mu jaar ci moom mu yóbbul na ko ci njiitu réew mi di président Macky ñaan ak taxawaay bi mu am ci communauté waaye am na ci réew mi yàlla te yàlla gën a jàppale lépp représentant wu xalif bi ci dëkk yëpp ak bokk xaalis nuyu nag président groupement central Alaaji Jaaju ak équipe mu àndal nuyu président wu fédération daayira Ndine Aada mais ñooñu ñëpp ñoo constitué le comité d' ñooñu ci laay jaar bu ci nangam lay ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant yow ci njaboot gi ñu tuddee leen communauté lay ginnaaw nag ba mu nuyoo kilifa yi diine yi macha allah xool seen daam jigéen a ngi nii. jóge Thiès du ma ñëwaat ci kër Maam Alaaji mi nga xamante ni moom la ñu am ak kër Seydina Limaamu ànd ak sëñ Maodo Cissé kilifa yooyu yëpp nag ci ñoom laay jaar fépp bu kilifa diine ne ci réew mii ak foo toogee ñu ngi lay nuyu di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala la nga toog toogal fa say maam yàlla nga ñëpp teeri di euh, macha allah di teewal am mbégte lool ci suñu kilifa diine ci réew mi nuyu gi ñu tudde leen ah yi wala communauté laayeen ci taxawaay yi sant leen leen ñaari at a gi lu ko raw ngeen déglu ndigal dal tooge nii yàlla na leen yàlla fay jaarit njaboot gën a bitim réew fu ñu mën a ne macha allahu di suñuy doom di doomi communauté bi ñu ngi leen di nuyu di leen sant seen taxawaay fa ne waaye ak seen ci diine ñëw ci nos forces de sécurité gendarmerie police sapeur ak yëpp ku ne gis na seen taxawaay ñëwaat ba ci waa croix rouge loolu lépp fii bu melee nii ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla mu ñuy sécuriser te duñ ko gis waaye nag ñi ñuy gis te muy ñoom yàlla leen yàlla fay ñëw ci les médias d'état les médias privés la presse écrite la presse en ligne ak ñëpp ku ne xam na ni ñii macha allah lu mu yëkkati lu mu nangam gaa yaa ngi ni taxaw yàlla leen yàlla gën a dëgg. nuyu sunu médecin chef di Cheikh Sadibou Diop di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nuyu nag ñun waa tey di suñu maire dafay am ay gan. te duñu sax ay gar ay naataangoo bi maire a ngi fi maire golf mi ngi nii toog maire Yoff bay seen a sàmm moom it yàlla na ko yàlla jàppale dëgëral ki may tudd maire Parcelles Assainies moom fii nga xamante ni moom itam ah barke démb la toog moom it yàlla na ko yàlla dëgëral jàppale ko ñëw nag ci le maire Moussa Sy mosuloon a ñëw fii mukk Moussa ngi fii ci kaw dëkk bii ak fii mu toog aw kenn lañ ko ameel ba ila abadil abidin Moussa jërëjëf sant bu baax fi nga xamante ni moo lal li nu fiy càmbar lu weesu lu ci ëpp ndaw ñi ñoo ko moom thème bi moo laaj loolu dans la lutte contre l'extrémisme tarbiya wa atharuha fi muwajahati akthar te li ci ëpp ku joxoñ rek ndaw ñi ngay joxoñ ndaw ñi nag dafa am lu leen gàllankoor ndeysaan ngeen xoolee li wër fi yëpp macha allah li ci ëpp ay ndaw lañ te nag booy seet leen di tooñ parce que ndaw ñi danoo jaaxle jaaxle bi mooy lan rawatina nag ci wàllu diine tantôt ñu ngi la lii tantôt ñu ngi la nële da ngay dem ba dispersé wu xamatoo koo loolu dal na ndaw ñi lu tax discours diine moo yomb yomb boo xam ni ku mu neex nu la neexee. fu la neexee nga dugal da ngay xëy dégg lii balaa ngoon nga dégg leneen xale yëpp ba jaaxle xamatuñu fu ñu jëm yooyu yëpp daan jeex mu jël li arab di wax alfaraagu ruuxi lu mu jël benn vide spirituel loolu lépp cest à loo xamante ni foofu mu jëmee dañ ni al xuluwu ni extrémisme iyaakum wal xuluwu ci diini la yonente bokkoon tëm loolu lépp ah, dal ndaw ñi waaye dañu ni woote ni Seydina Limaamu gis nga woote Seydina Limaamu mënul génn alquran yëgganul sunna déedéet benn law asalukum mu ne an diinikum muxaatiban awliyaa al umur ma huwa diin luy maa ngi leen di laaj ba mu jëkkee ni uusikum bil iyaali maa ngi dem mu njaboot yi ni asalukum nag an diinikum ñu waxal mooy waaye yar yi te kenn jiituwu ci njaboot gi ci kër gi c'est-à-dire ëpp solo c'est la cellule familiale al usra asalukum ye am diinikum parce que la mu ci jublu diine ja ci wàllu yar moo war a jeexital ba ca njaboot ga bu ci dégg ni yar macha allah njaboot si jiitu waaw mais nag ku yarawul nu muy yare ñu dugalaat beneen élément yar mooy jubbanti lu dëng jiwalaat rek ñu yaakaare ci jànguwaay yi muy école yi te bu la neexee sax nga dugal beneen élément ci jullit yi mooy jàkka yi ndax jàkka yi Faatiha ak saar kese la ci lislaam amoon wala war nañoo yaraat kon jàkka yee war nañoo nekk relais jëm ci société bi rawatina xale yi mais bu dee ne entre quatre mille xale ma ëpp ëpp dem donc jàkka fa lañ doon jàngalee démb fa lañ doon yare jàkka sax demoon na ba nekk état major institution sociale mais bu yamee ci nangam mooy ni kon ñi koy jiite war nañu leen a former ñu xaw a méngoo tendance bi am ci jamono asalukum an diinikum la Seydina Limaamu ñu ni maa huwa diin hatta pour gàttal ko al inqiyaad topp ak it xool ndaw ñi désespoir moo leen dugg waxoon nañu fee ak ñii dugg nañu géej gi li ci des diine am na ci responsabilité en tout cas ci li ma que am na ci lenn ci ay discours dafa jur déggu ay nit pourquoi téye diine dëkkal la boo xamante ni mission diine mooy defarlu bon mission diine nag bu demee malaaka yaa koy yor feneen te doo gis malaaka xamoon mu reer ne yaa ngi reer di bisanti dañ lay lax loolu la ñu tuddee wa tatajalla azmat alfaraahu lu ar ruux c'est la famine spirituelle kon nanu bàyyi fexe sunuy ndaw ci wàllu diine lay wax ndax ci këru diine lanu taxaw di wax discours bu war a génn ci diine war dafa war a nekk diine dafa man dafa mas di libéré mais bu ñu demee ba tëj xelu suñuy ndaw li ñu produire bal yi ngay dégg téel ma ay ceinture yi ñuy ñoo ko def mais statistique yi bu ñu ñëwee rek naan nangam nangam ah ah dafa am ay cause yoo xam ne diine am na ci nangam. discours diine moo xaw a doy xale yi boo ci doon interroger manumaa taxaw man Seydina bu subaa mu wax bi discours balaa midi ma waxaat leneen bu subaa ma waxaat leneen mais kan yàlla luy diine kuy nangam mu ne si rek ci boppu xale yi te bi ci gën a dangereux bi ci gën a dangereux fii jamono tollu tey am na loo xam ne trop la moment bi ngay toog ñu la koy jox yaa ngi jëmmantoo ko nelaw moment boobu ñeneen ngi produire di dem et en même temps les inégalités gën a sampu gën a nangam xale yi jupp di jupp ba takk ay di taalante kon nanu bàyyi xel xale yi li Seydina Ali waxoon mu ne rabbu abnaakum li diinihim fa innahum qad xuliqu li jiilin gayri jiilikum dinaa li nee na bàyyi leen yar leen xale yi te xam ni génération lañu boo xamante ni bokku leen ñoom génération dama wax ni te muy dëgg ku jël xale yi xale ëpp fii sont là am yaakaar kilifa yaa ngi nii ci diine am yaakaar ci lu baax am na ñoo xamante ni depuis ñaari at lii rek la ñu kon bu nu jàkkaarloo ñoom nan leen wax xaqiiqatu diine luy dëgg dëgg diine dafa mel ni diine jàkk rek ñu diine bu ci mbedd mi bokkul ma ni jàkk du fonctionné du yëngu am zakat bi nga xamante ni eh, moom la la euh, la commission scientifique daañu ko développé feneen benn aspect bu ndaw rek lañ ci wax laal ci nangam mais fi may tëjee ñu ngi ci jamono bu nga xamante ni fii ñu toll nii tey ci suñu réew ak li nu wër. ku taxaw ne la sécurité à cent pour cent bii bi lay wax lu ko nekk déedéet ay alerte am na rawatina nag ci ndaw ñi ay at lu koy wax muy état seul laa ni mënu sécuriser à cent pour cent ces populations sans la collaboration de ces populations li lu wër war na mën a tax sénégalais yi bàyyiwaat seen xel ci ni réew mi nag yàlla def na fi lu am solo mooy ay këri diine ay mag ñu baax ñoo fi yow li ñu tuddee islam confrérique ay mag ñoo ko liggéey ba am ngërëmal yàlla waaye bu ñu sàgganee ak li ma gis loolaa ñu commencé dañ leneen a ngi dugg si te gars yi bëgguñu koo laal. li ñu jàppale ñun Sénégal ba waxtu wi mooy loolu nee naa leen tant insisté wuñu sur la citoyenneté daañu yàq suñu réew Sénégal du réew majorité minorité réew sénégalais yi la bis bu ñu jëlee tariqa sàngam moo ëpp tariqa sàngam génn ni église bi bokkatul kee bokkatul mooy ne rey nañu yàq suñu réew Sénégal bu amee stabilité politique am lépp li ko composé mooy loolu sëriñ diine yi ci lañu jàngu bi ci lañu leneen mais gis naa ni ñu koy xasas ndànk te bis bu mu jógee ñun ñëpp billaahi watallaahi li dal gaa yi lu ko dal li tax nu am jàmm ba waxtu yi macha allah kuy sénégalais war na cee nangu à commencer par le pouvoir public la citoyenneté laa ni na nekk liy dajale sénégalais bis bu fi jógee ñu naan kii moom ñii ñoo ëpp ñii xeer moo ëpp ñële jàpp ñu bokkatuñu leneen bokkatul billaahi wa talaay suñu réew tàkk kon nag yéen ñi nga xamante ni moo xam ci média yi la ak ñeneen rawatina na suñu kilifa diine yu baax yi seen rôle la kilifa diine yi réew mi bu àggee fii ci stabilité da ngeen cee joué rôle yu rëy am na nag troisième koroxam nañ leen tuddee ñii état amul benn sëriñ bi ñu gëm déedéet bis bu ñu sàgganee ñu doorante këri diine yi sàggan ba li ñu may suñu doole gars jëli kër yi xamatuñu fu mu jëm kon lañu consolider la citoyenneté mu nekk loo xamante ni tous les Sénégalais dañuy retrouver ci la citoyenneté mooy war a mën a tax ñu war a mën a jëm ci kanam càmm bu amul laali duñu dara produire duñu para liggéey nee bu jàmm amul tey bu dee budget national la volet sécurité la jox la ci ëpp bu boobaa santé dina daanu bu boobaa éducation dina daanu bu leneen daanu bu muy créer déséquilibre kon gars yi jàmm ci la te fondement jàmm yi la cohésion sociale mooy li tey mooy le peuple sénégalais yooyu yëpp ñu retrouver ci essentiel mooy fexe consolider la citoyenneté te nag bu dee ci diine laa ilaha amul lugati laa ilaha illa justice sociale la comportement la lépp la defe naa ne loolu la fi bàyyi lay def société muy société égalitaire adduna nag sax tool yu bëgg jëm tey tey ku ci ne dem nga ba xam ni manoo kon li yàlla def ci suñu réew mu jàmmalalu bu waxtu yii ba fii ñu toll nañ ko gën a consolider li ci des nag réew ci ay contradiction laa koy wax mais day doon ay contradiction positive le vivre ensemble na ne kiy dëgëral kii suñu réew bu ñu am benn complexe ci suñu réew li nga taxawal ñu mën a taxaw ñun ñëpp moo xam sëriñ la moo xam leneen la loolu na nekk hymne bi sëriñ Ablaye doon def fële ci kër tarix yëpp loolu benn la mais boo leen beneen composant mooy jàng muy muy ci la ñu kon loolu rek laay wax di nuyu di gërëm di santit kilifa yu baax yi di ñaan yàlla lii nu ubbee fii yàlla doon teraanga sutura ak lépp ci ñëpp nag ci ñaan yàlla lii diine ci réew mi laaj dama ñun bu dee jullit la ñu ni àjjana la ñu bëgg ajjana loolu la wax waaye ajjana bu fa benn tariqa nekkee moom rek dina mu laayeen toogee ajjana ñoom rek daal bu wéetee ajjana rëy na de bu ko murit toogee gën a wéet kese tijaan ñëw wéet xaadiree ñëw wéet teenu kaa bokk ñun ñëpp allahuma salli ala sayyidina ya fekk yàlla lu dee. العظيم الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل منهم رسله واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم الرسل وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقد لساني واهدي قلبي بجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوكي كي تري الله muy baat bi nga xam ne moom la yàlla tànn di ko ubbi ay kàddoom muy bismillahi rahmaani rahim lan la yàlla barkeelal na si sunuy kàddu barkeelal na si sunu jotaay bi barkeel leen barkeel njaboot gi barkeel sunu dund barkeel sunu dee ak bés لسان السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إذا هو نجيب daana wax ne may buntab limaamo ku bëgg yegg ci man doo yegg yonent bi waxoon ne inna isa ibnu maryam lam yamut wa innahu raajiun ilaykum qabla yawm alqiyamat na ngeen xam ne isa deewul te dina dellu sa si yéen balaa bés bi yàlla ne وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها loolu la yàlla wax il sera un signe au sujet de l'heure non bougez point kooku mooy kii ginnaaw bi nga xamee ne ubbee na si turu yàlla nga xam ne lii di am du kenn yàlla يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه أنه إليه تسرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب li musulu ci seytaane yàq xaj boobu kon ku fi teew yàlla musal na la ba nga bañ ba nga man fee teew ndax iblis day bu sañoon kenn du uyu ooteb yàlla ak ak yonenta li julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala لأن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سنت يا الله بقى لأنك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ولك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا banaa ndimbalal yàlla loolu ñëw na nu fas yéenee wax ci kàddu kii nga xam ne moom la fi yàlla teg tey muy Seydina Mouhamadul Makhtar ibn Seydina Madiane bàyyi lay amate na ndam summa stata'naahum al-wa'da fa anjaynaahum wa man nasha wa ahlakna al-musrifin yàlla dafa njëkk wax ne wa laqad sabaqat kalimatunaa li 'ibaadinaa al-mursaliin innahum lahum al-mansuuruun wa inna jundana lahum al-ghaalibuun mu ne jox naa samay kàddu maanaam wax naa ko ba pare xam nga ni bi mu ni day am kàddu masam ak yàlla min wala kulli shay'in qadir yàlla jëlewul dara mu ne sama kàddu nag jox naa ci sama jaam yooyu nga xam ne maa leen yónni dinañu am sama ndimbal wa inna jundana lahumul ghalibun kon naa bàyyi lay lii mu am day ndimbalam yàlla la in yansurkumullahu fala ghaliba lakum وإن يهويكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده baabu yàlla bi mu ne Seydina Limaamu kan moo ko dimbali xalifa bu tedd bii nga xam ne moo fi toog bii mooy appelam bu jëkk ginnaaw bi fi Seydina Abdullahi mi nga xam ne maama ma ko tuddoon ay baayam ñaanal ka ay magam óolu ko di doxal lii wan ñi ba mu ëpp fii mu dem uyi maamam ba mu dënd ca illa yéen di yàlla yàlla yàlla taas ci barkeem yàlla dogal ci dogalam yi mu ne la ma dugal sama yeneen dëggal naa ko mujjale ak ku ma ثم صنعناهم الوعد فأنجيناه ومن نشاء سينا إسانك ومن نشاء سيدنا من يونك ومن نشاء سيدنا عيسى mu Seydina man yoon doon xalifa bi jëkk toog ngir sët ci Seydina Limaam ñu ngi koy fàttaliku ndax lii wax appel te centenaire ba mu tomme toogaayu bay seen jaw di xamit sëtam bi jëkk a toog ci xilaafa te la amal ba xew-xew bi léegi nag ñu ngi ci cent quarante deuxième anniversaire de l'appel de Seydina Limamou wala xam nee na lu dul dëgg du yàgg ma ne awaaye lay lu fi yàgg xanaa ko dëggal te bay lay am na ndimbal xaataala nala an naatikum bi sultaanin illaa bi idnillah yeneen tey yàlla

képp koo xam ne nangu woo sama dogal bul wax ci sama suuf ko def ba léegi nag bu la sama asamaan fii kan moo am yeneen suuf bu dul bi yàlla joo mën a doxal sa tànk yi baa nga dawal ko daaw yow moom na yéegi mu ne bu dee da nga yaakaar ne am ngay pexe ba taxaw ci sama suuf foo dem sama asamaan fii nga yee puiser planète boo mën a wàcc asamaan yàlla ngi la ci ku gëmul samay dogal boo dox ci sama kaw suuf wala sama asamaan ci xane kan moo man man dogalu yàlla la la waaj a noon le hasard est sûrement le de Dieu dont il ne va loolu mooy xudra yàlla am na fulla ju toll ni allahu a'lamu haythu yaj'alu risaala yàlla bu muy def ak yeneen tam xam na neex na nit ñi naqari na nit ñi yoonam nekk waaye yeneen bi bu mu waxoon xalifa bi walaw taqawwala alayna ba'da al-aqaawil la axadna minhu bil-yamin thumma laqata'na minhu al-watiin wa ma minkum min ahadin anhu haajizin xam nga yàlla ngi jiital ab affaire bi Seydina Limaam dafa xool yonent bi ba mu yàgg mu ne ko soo ma waxaloon lu tuut lu ma la wax loowul sama loxo di joor lay téye ci sa xol dox mu ma buuree jëm si yow xamul kenn koo xam ne man ndox comme diggante ak yow waaw kon bàyyi laay mu ne yàlla ma yónni mën a démb mën a mooy kat li mu wax moo ko jëkk a waxal boppam mu ne lii ma oote kii boo ko Nigeria, comme en Afrique orientale, en Guinée dite portugaise, comme au Sénégal. nekk bàyyi laay am na ñoom fi nekk lañ ko woon. na dëggal ne moom mooy vrai ñoom ñëpp day dee rek. tey naa li maamu kese la am ooteem sax ba ooteem egg ci téeméeri ak ñetti at ak ñaar. yaa ma. معشر الإنس والجن رسول الله آية محمد يقول في benn bi mooy di ko ubbee uy si leen ooteeg yàlla ak yeneen tax uy si leen ooteeg yàlla ak yeneen tax bari laa waxul leneen du war liyu du xotto dana inni rasulullahi ilayka waxam dafa leer dellu si gannaaw noonu sonn ko wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan mbokk yi jéem beneen mu ne minal mujrimin wa kafaa bi rabbika haadiyan wa nasiira tubaab yi jéem ñoom ñëpp alku tey bàyyi lay des kon suñu toogee ba tey moo tax nee na jéggalul ma mbooloo si xaar bu yàgg bi waaye yoolom tafsir bi mu ne du ma fekk kenn waaye yëpp dinañ li ma am waaye yow mi gëm kooku la ba pare gis su kës la ko moom ne yaa ngi weddi li maamu kooka def kan nga mu ne sëñ Tuubaa ci moom mu ne moom allah ji man tegte lii mu joxoon bu ñëwee moom moom moom yow dëppoo ci wér-gu-wér laayeen yi lan la ñuy wér-gu-wér awliyaa allahi yadxuluuna zumratanaa bil wirdi yaaxuzuuna xam kon loolu ko loolu tiita xatta al imaam al aalam al mahdi fi aaxiri al azminati al mahdi dinañu jël suñu weer daal dina xam ne mooy li ma lu la lu ne baax a biir mu ne fan lay feeñ ci affaire zaman mu ne man de tegtal bi ma leen di jox mooy bu limaam mu indee leneen lu dul wér du Tijaan bàyyi leen ko te xam ne du moom bàyyi leen faa tax a teg ñu ne laaj kaay laay def nee gàmmu xel yëpp dem ci waaw waaye bu nee appel xel yëpp yokk kon ñëpp nanguñ ne ñu oote na keneen ootewul ko doon loolu gën a dal day ku ne mën ngaa oote la neex waaye ah ji boo daa yàlla li ma mun wax du nekk moo ko fa oote ji laa yore ci moom moo dee والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم والعزيز الحكيم ذلك لك فضل الله يؤتيه من يشاء والعزيز الحكيم من يؤمن لك يا الله ndax ba may wax yonent bi ne ba ma koy yónni te yàlla xam ne jàngu ne waaye nag dina am ñeneen ñoo xam ne dina dëgg borom xam-xam yu bari nee nañ aaya boobu yàlla ba ci dëxëy ne yonent bi ne dëgg wa axarina minhum lammaa yalhaqu bihim wa azizun hakim mu ne nag zaalika naka loolu fadlullahi nga leen di yàlla yu'tiihi man yashaa'u wala naka bi def maa ngi leen di fàttali la ginnaaw bi ma leen fàttalee yéen ñi gëm fàttali ñu gëmu ci laaj yi waral noo jëli yéen bàyyi xel ci aayaat yi ma leen ko man nag yàlla ko bind noonu moo tax ñu daan ko wax Mouhamadul Maxtaar kuñ ko yàlla la. léeg-léeg ngeen bëggante la maamam dane uusiikum an taj'alu baynakum al-mahabba fa inna ahla al-jannati yatahabbuun wa laa taj'alu baynakum al-adaawata wal-baghdaa'a antum kuntum ixwaanan maa ngi leen di fàttali loolu ndax sama mag bàyyi si di kaw da daan wax ne ñu ñu jëkk waruñoo jëkk maa ngi leen di fàttali ko dégg ngeen bëggante ci seen biir ndax maamam nee na waa ajjana dañuy bëggante. yéen a ma dal ji tey. du ma tax a soppeeku ndax dafa am lu ma yàlla bindee royuwaay la guddul ab tànk guddul la mbañ kenn du ko fekk kenn leewul moo ko wax te jamono ji loolu dong nga yàq lu ne roy wel nag te la ngay wax dara waaye ku ne xam ne ne royuwaay la bay laay newoon na jamono ju jamonoy gàtt làmbañ gàtt làmbañ la ndigu ma ko gàmmut moom de yàlla muccal naka yàlla na yàlla muccal te mucc damaa ngi leen di dénk yii ak lépp lu sama maam digle woon samay bàyyi otti ko samay mag otti ko ba mu otti si man déggaluma leen leneen lu ko maa ngi leen di gërëm jamano doo mi bàyyi ma ñoom laay sala nañ kay mat te luru ko barke laay laay laay saloo borom jamano doo mi bàyyi ma ñoom laay sala nañ kay li si gën a yéeme xam nga lu nekk ni ñu wax lu ne ñu lijjanti ko ah ñu ngi defoon nañ ne dina génn ci appel mu mel ni exigence man Mamadou Makhtar Ibn Seyna ma jox damaa gëm ni sama mag bi Seyna Abdoulaye mu ngi dund ba léegi man loolu laa ndax moo xaw ma dara lu muy soppi ci li mu ko bàyyi woon ndax na moom la sama bàyyi wóolu nekk day yu góor yeeg yu jigéen yaa ngoog jiiru yaa ngoog te la mu defoon lépp la sax ndax man maxtaar moo ma yaay te këram laa yor moo fi nekk ba tey sans dañ ma jël ñu la xàllal yoon ndax lan Seydina Isa dafa defaral ko mu baax mu ñëw rek toog ndox mu ne waaye kenn dañ maa defaral ba mu baax mu ñëw rek ndox kenn moo ma defaral sama ci baax Seydina Abdoulaye. may leen sécurité bi ñu yóbbu sàngay transfert yow la kan yow la kan non mais loolu du nekk léegi de waaw ma du nekk tey de parce que damay liggéey pareeguma